weeru koor di weeru dimbalante ak def lu baax ba tax saay su ñëwee ñu bari ci kan wi di jël seen doole waaye tam di jël seen ñàq di ko dugal ci way néew gi doole yi nga xam ne nii sox ñooñule bokk na ci Alla Sylla di commerçant ci marché Ocass waaye itam di ab politique boo xam ni mi ngi bokk ci parti bii di APR moom mi le nag at mu jot mu jël ñàqam di ko dugal ci way néew gi doole ngi nii rek weeru koor lañ nekk tàng na métti na nag waaye li amoon yéene mooy ñi nga xam ne am nañ yéenay dimbali mooy comme ñu mel ni ñi madun caam mi ak mbootaayam ak ñi mu àndal ñëpp ak ndongay daara yi nga xam ne dañuy jàngale alxuraan te nekk ci dëkk bi loolu lañ amoon ci yéenay ceeb bii fi nekk mat na 10 tonnes ñu fas yéene koo séddale ak képp ku nga xam ne néew li ci wala nga te nga xam ne yaa ngi war te na la mënoo sa bor Baye Alla Sylla at mu jot muy organiser journée boo xam ne nii journée de solidarité la maanaam bisub jàppalante ren ji nag ndimbali lu ci bëri mu daal di koy jëmalee ci association des handicapés bu département bu Mbacké teq teqantal ko ndànk-ndànk kenn ci ne la ciy sawaalu ñu fexe ba nga jot ci loolu bi bi ma leen xam nga tur bi sax bëgguma ci di jaar ba ah, xëy na ah, ah, handicapé mais nag comme yàlla moo leen ko teg ci xëy na ñun tamit nu ngi dund dara jombagul ci ñun bëggumay jaar ci loolu yéen laal jun am ci ñoom la ndimbal mel nii di faral di am yaliñ dool ñi nga xam ne ci ñoom la jëm ndax seenu néew ju doole waaye itam seenu ñàkk kàttan ba tax yenn ci way defal yàlla yi weeru kooru jot ñuy jël ndimbal yu mel nii di ko jëmale ci way néew ju doole yi Baye Alla Sylla doon profité waale ci bis boobulee doon wax ak ay militant am waaye itam di wax ak ñi nga xam ne ñoom la séqal làngook bi ci département bu Mbacké aquí